ndomba gi jigéen bu ko bëgg te jigéen xam na ne bu dee takk ay ndombaak yooyu du rafet amul beneen changement bu ñu ko ko man a defaral euh, mu wut ndomba gi wala ndomba rek la mën doon. waaw seex kilifa gi ma ko jox. ndomba rek la ma wax. ndomba rek la man a doon waaw. Ah, mu góor di jigéen di mag di naw ndomba rek. waaw ndomba la ma wax ne moom la man a doon. dégg ngeen ko kon wutal naa leen lay côté boobu pour mu xaw a rafet tuuti mais nee na ndomba rek li tax ñu tudd laal ci gaynde dañ koy ëw deru gaynde wala lu tax gaynde tudd. maanaam secret bi moo tu noonu. secret mag ndomba gaynde gi moo tax ñu ko waxee noonu waaw ko waxee noonu kon numéro yaa ngi doon ci écran bi ngeen jël bu baax a baax a baax Ousseynou Ly mi ngi Allemagne mi ngi seetaan Malick Jité mi ngi Grèce mi ngi seetaan Dieynaba Diabaté mi ngi seetaan Mamy d'Enfants France mi ngi seetaan yéen a ngi seetaan Tektal TV abonné leen kum neex nga abonné kum neex bul abonné njëriñ lan yor euh, am na nag ñoo xam ne que dañoo xaddi ci sëriñ doon ci sëriñ ngir nax gu leen sëriñ si nax mm-hmm. ngir sëriñ si di dooni comédien di dem vaar bay bëgg a dee ngir sëriñ si di jël seen xaalis bu bloqué leen xet googu ba nga xam dañuy maas noonu gi ba merewaale ko ci yoonam nekkul te ñooñ tamit dangay seen maa ngi leen di wax leen ma ne leen gis nga koy ñaanlu wax naa ñu bari am na ñoo xam ne dañuy ñaanlu di jël seen xaalis def ci sëriñ si dem ba mu yàgg ñu bàyyi def seen xaalis sëriñ si bàyyi seen bopp yàlla mais danoo mujj ci gàttal ñoom bu ñu defee sondage xam na ne bi ñu doon jox lu ñu jox sëriñ si ñu ngi koy am mais bi ñu ko joxatul amatul maanaam au lieu ñu gën a sakkanle dañoo gën a dellu ginnaaw Afrique la nekk il faut jóg sa bopp balaa ñu lay jógal nit ñi ku bàyyee ko lu la dal yaa ko teg sa bopp de gars yi la dàq bind commentaire di wax sëriñ si lu ñaaw jéemal nuyoo ak ñoom akolaat ak ñoom xool seen ndigg li du nangu ak dënd yi ak kii bi ay téere lay feesal ak balaa ñuy génn dinañ suuru dinañ gas dinañ suul lu ne dinañ ko def pare ñëw nañ tubaab tubaab la naan ah man kay nangam yi moom gëmm mel xamuñu ñoo gën a xam mbiri li xew mm-hmm. jóg leen seen bopp ñu côté boobu ñu ci ñi nga xam ne de lu leen influence dafa yomb ban jékki-jékki décoration ci wàllum ñaan ba am malheur yu mën a dal seen kaw. Mm. te fekk bi ni ñaan lu sax au moins que sëriñ see ngi doon yóbbu seen ay. seex ñaan moom képp ku ko sàggane wala nga bàyyiwoo ko xel. Mm-hmm. li ma la waxoon léegi moo siy amaat xamal ne jamono joo toll lu ne mën naa dal sa kaw. si mën naa ndax nit ki nga xam ne maanaam tool bi nga xam ne dañ koo ñàkk. yàgg mm. naa ko wax ak tool bi ñu ñëgul seex bokkuñu. Mm. bu jur gi riiree dem. fu ñuy dugg. ci tool bi ñëwul la ñuy dugg. mooy nit koo xam ne amul benn kaaraange. amul benn kaaraange lépp lu ñëw rek maanaam day am accès si moom da koy dugg. waaye seex boo ñagee sa bopp nag ñag sa njaboot wut kaaraange goo xam ne si ne tey danga nga ko ñagee sa bopp ñagee ko sa njaboot. Mm. lépp lu ñëwit du accès si yéen. Mm. lépp lu ñëw ak lu manti doon. ñun boo kaaraange gi ma la wax dañ koy jëfandikoo ñaari fan képp ku ko am sangoo ko. Mm. lépp lu luñ la mën a sànni mooy la bon. ba si ngelawu saytaane tey bu doon ñëw bëgg laa dugg du am pour dugg. parce que sa yaram fépp aar nga ko fépp lay aar fépp la protéger du man a am accès si yow. macha allah jërëjëf euh, sëñ Moustapha Lo borom euh, fourne bi léegi ku bëgg nag euh, jëm bayra bayra ci boppam nga xam ne que nag am na ñoo xam du def kenn dara mais dañu mel lu soof nit am ñoo du defal kenn dara mais dañu mel lu neex nit ñi ku bëgg bayra ak ñi nga xam tamit dañuy am bayra ba mu yàgg ñu mel ne bayra ba dafa ruus. Hmm. xeet boobu lan moo koy waral ak yow bayra à vie mën nga ko. seex bayre dafa am ay façon hmm. ndax dafa am ñoo xam ne si dañ leen di defal bayre boo xam ne si ne maa xam nga am na bayra yoo xam ne si ne 40 jours lay diire. 40 mhm. jours 40 jours lañ lay dégg nga fay. te niñ lay déggee noon ngay fay. te seex dafa am bayre yoo xam ne si nag boo ko jëfandikoo. looy gën di dem muy gën di jàpp. muy gën di looy jëf looy gën di dem bayre bi di gën a saf si yow. di gën a saf sa yaram. Mm. ngay gën a saf nit ñi di gën a am ubbeeku. te seex bayra mm. maanaam kaaraange da koy jiitu. da koy jiitu ndax seex tey bu la ñëpp yi tudd. ñëpp nga am ubbeeku. neex a xool ci kanamu nit ñi ku la xool sopp la te amoo kaaraange lu ne mën na laa dugg. Mm-hmm. te lu bët bu ne bëtit dafa am tooke. làmmiñ dafa am tooke moo tax ñuy wax cat. ndax am na làmmiñ yoo xam ne si dañoo aay am bët yoo xam ne dañoo aay. Mm-hmm. luñ xool mu am gàllankoor luñ mm-hmm. tudd mu am gàllankoor. moo tax seex bala ngaa wut bayre ñun moom yor nañ bayre yi seex bayre commerçant dafa am. koo xam ne day yëngu si wàllum jaay. bayreem dafa am spécial. dafa am spécial. am na bayra boo xam ne si béjjënu tabaski lañ koy sox mm-hmm. am na boo xam ne si béjjënu bëy pour wàllu commerçant si buntu place bi la koy takk mm-hmm. am boo xam ne si ne bayre foqet lañ koy wax mm-hmm. euh, sama waaja ne fële moom sa turandoo moom sant na bu baax am na bayre ah. foqet bi waaw nee moom Mm-hmm. tubaab yi fi ne dama leen a jaaxal ndax fi ma am place ñoom mënuñu faa am place mm-hmm. nee nu leen ñu ngi ma koy xeexe pour ma jóge fi <laughs> ndax marché ba gën a dox uh-huh. euh, maanaam fa la dem yàlla defal ko mu sutura ba ma am fa place mm-hmm. nee na marché bi par le samedi la xuma par lan waaye nee na ma alhamdulilah bu bis bi ñëwee damay liggéey ba ñoom dañuy waaru waaye bàyyi da foqet bi laa ko liggéeyal mu am ko seex boole saak beneen boo xam ne bu xëyee day def si place am seex nee na mi ngi liggéey bu baax mi ngi sant yàlla loolu moo am solo mooy li ma la wax si tegtal sant ak ñi si jaar seen aajo faju mm-hmm. seex bu la ko yàlla fayee kenn munta tee nga gis ko fii gis ko fële ndax maanaam nit ki tamit bu ubbee benn buntu nit ñi di fa jaar njariñ di fa feeñ nit ñi di si gis seen bopp mm-hmm. kenn munta tee ba yàlla suñu borom bi bu la nit fayulit bu nit iñaaneet yàlla gis na li nga def yàlla gis na sa taxawaay maanaam nit ñi maanaam nit moo soxor mais yàlla soxoru ah, doomu aadama yi ñoo soxor seex mënuñu mm-hmm. gis nit am dara wala ñu foo xam ne si ne da koo ubbi ay ñaankat dafa jaar résultat dafa am. Mm-hmm. ñu bëgg koo suul wala ñu bëgg a jaar si suuf di yàq maanaam site bi wala di yàq deru kooku. Eh, te fekk na maanaam loolu fekk na yàlla moom gis na sa taxawaay gis na li mm-hmm. li maanaam résultat yi nga am. gis nga euh, sëñ Moustapha Tektal TV maanaam moom mu bay boo ku yebbu nga ñaan rek ñun niti daara la Euh, te benn affaire am na gis nga man nag ay mbir teguma ko ci pexe de man ci yéene bu rafet leen koy teg ak dëgg. Hmm. amul benn mbindeef bu bëgg lu baax boo xam lu baax li nga bëgg ñun ñoo la ko xañ loolu xalaatuñ ko mais nii ñu dund nii am na xuma sëriñ la xuma kan la am na ku yónnee tegtal boutique benn maire mu yóbbu fay liggéey bi mu ko defee balaa mit cinq minutes lañ ko jàpp vidéo bi nag publié guma ko dama koy bàyyi noonu tuuti. parce que dama mu mel ne liggéeyam jàpp na quoi comprendre maa ngi ko may ay semaine mu mel ne doon def am na ci ndam ba pare bu ko defee dina dem liggéey jiwaat fayaat sëriñ ba continué waat ñëwaat fekkaat ñu fi rek. day solal boppam. gis nga ba ni du lekki. kon nan rafetal yéene yi te teg ko ci dëgg. ñun amuñu noonu kenn ku nekk ci dëgg. suñu xarit nga ku nekkul ci dëgg nag door suñu xarit dëgg rek ak résultat mooy mbir yi. ah billaay mais yokk ñaan daal. incha allah buur tegtal TV. Ah, bu soobee yàlla. incha allah gis nga wàllu bayre am na bayre commerçant. am na bayre tubaab. Mm-hmm. am na bayre boo xam ne pour ñi nga xam ne si ne. Mm-hmm. dañuy dem si wàllu nasaraan si wala ñu nekk fu mel ne mm-hmm. Europe. dafa am bayre yoo xam ne si ne spécial moom la ñu war a jëfandikoo. seex am na bayre jigéen. am na bayre yoo xam ne si ne boo ko jëfandikoo jigéen ñi dañ lay sopp dañ lay bëgg. dañ lay jiblu. waaw noonu la ameet bayre boo xam ne si ne boo ko jëfandikoo mag ak xale Mm-hmm. góor ak jigéen ñëpp lay soob. bayra yi dafa bëri façon si yàq. maa ngi si yor bu si ne ak la muy dox la muy àndal ak maanaam li ko tax a jóg. bëri na ay façon waaye ku bëgg ubbi ku daal ak bayra bu wér. seex buñ déggantee daañu la ko defal te boo ko jëlee da nga gis résultat bi incha allah. incha allah ngeen bàyyi xel nag di bañ a jaawale leen bayra tamit nit léeg-léeg day bëgg siiw di def toj-toj boo xam ne que képp ku ko def ci àddina siiw. ñu lay mbamb nag nga yaakaar ne yaa yor bës bi yaa yor bàyyi fekk yow lu kenn sëñ te wax nga wax ko yaay dof bi. Mm-hmm. lu kenn sëñ te def nga def ko yaay dof bi. te bës Sénégal yi nga xam ne deux semaines ñu wàcc wax ci leneen après la nga defoon nag fàtte ko des bi duñ ko fàtte bañ leen a bàyyi xel rek bu baax a baax rëccu rëccu lu jëpp di ginnaaw lay féete bàyyi leen ko xel bu baax di dugg ci siiw bu leen noppal. Mm-hmm. di dugg ci am-am bu leen noppal di xam lu leen noppal mais naa am rek mu amee baax na dem leen rek ay waaye dajale yow la de. Euh, sëñ Moussa Wallo cat nag noo ci man cat. seex wàllu cat moom. dindi ko ba mu ci waaw yor nañ si sangat boo xam ne si ne boo ko sangoo seex. fi nga taxaw la cat bépp di wàcc. ah formaté bu waaw fi nga taxaw sangoo ko fi la cat bépp yi wàcc si kàttanu yàlla ak mbaaxam. Mm. te seex xam nga cat dafa am it cangat yoo xam ne si ne da see wóote. ndax am na ñoo xam ne si dañ lay jox cangat boo xam ne si ne boo ko sangoo. Mm. lépp dana dem. mais boo génnee. Ah. mu mu mu mu songaat la mais si xam ne càngat goo xam ne si ne gi ma lay wax ni boo ko jëfandikoo hmm. maanaam day am puso yu muy àndal nga boo paree nga gas puso yi suul wala nga aj ko fenn lépp luy làmmiñ wala luy bët bu ñëwatee sa puso yi la jëm yow set nga yow mucc nga yow mucc nga waaw moo tax cat dafa am ay façon yi koy liggéeyee yoo xam ne hmm. maanaam yow dindil nga nit ki cat hmm. lépp luñ ko waxati wala luñ ko xoolati muy bët bu aay wala làmmiñ bu bu ko war a gàllankoor sa puso lay dem Euh, bu ko nit ki amee a chaque fois bu dee dafa deñ nan lay xamee ne cat deñ na dèjà bu ko nit ki amee moom mën na xam ne cat am na ko. ci mm-hmm. fi mu koy xool mooy ay yàqu-yàqu di muy yaakaar muy tas. Mm-hmm. ak yooyu mais bu deñee nan lay xamee ne deñ na. Cheikh cat boo taxawee sangat gi ñu si yor boo taxawee nga sangu ko. Mm-hmm. maanaam da nga yëg ne sa yaram oyof na tooy. te maanaam li lay jafe woon wala liñ la doon dig maanaam doo si man a jot. wala koo jëflanteel moo am gàllankoor. loolu da ngay gis ne deñ na. da gis maanaam ñi nga xam ne dañ laa digoon sax. joxuñu la woon wala gajoon nga leen a dégg. Mm. boo sangoo càngat gi dangay ngay gis ne dañ lay woowaat. Mm, waaw dañuy wëlbatikuwaat di la woo. Mm. lañ la diggoon daañ ko def. te képp ko doon jëflanteel cat dox sa diggante ba da gis ne loolu relation boobu dana doxaat incha allah. côté boobu ma fi jox nit ñi te ay conseil ngeen bàyyi xel léeg am na nit yoo xam na ka léeg-léeg ñu am seen nit euh, fonk ko lool mais mën nay tukki rek bañ leen tàggoo après diggante ba jaar fa yàqu loolu li nit naan say mbir dee ko nëbb boo ko nëbbul du baax nit ñi tamit kenn ku ne bëgg tekki léeg-léeg ñu nëbbu mais di wax ne wax koo war a wax te war a tukki toog fi moo gën nëbbu koo war a wax parce que diggante bu yàqu bi mu jur dara jaru ko dèjà yow waxal ki nga xam jàpp ne la yéene na la rek et puis nga gëm yàlla ne foo war a dem dangay dem foo warul dem doo dem et puis tam même wala booy waxit nga ñaan wala kooku daal lu sa xel laaj moom bëgguma joxe conseil di ci kii mais am na ñoo xam tamit mën nañu dem fenn bañ la tàggu mais bañ tàgg bi la tàggu tegu ko ci côté cat sax mais ñu ngi ko teg ci pour en cas bu nu amee problème fépp ñu war fa wëraat naan nii la demee dafa xaw a metti ngeen di comprendre nit buy tukki tàgguwu la nit bi tukki tamit dafa laa war a tàggu loolu bu mu yàq ay diggante daal ngeen bàyyi ko xel nit moom li nga koy jàppee na doon lim lay wan rek. Mm-hmm. mais tamit bul nangu tamit nit ki di la wax àddinaam yépp yow tamit nga koy nëbb sa àdduna yépp boobaa day ñaawal diggante quoi ngeen bàyyi xel joxante confiance boo toogee ne nag wóolatuma kenn kenn wóolatu sa àdduna day metti en tout cas dee leen rafetal bu baax a baax ñoo xam danaa leen seen mbir buy siiw di yàqu ba nit nëbbu ba muy juri jafe-jafe loolu tamit am nga ci bilende ba nit ki wax ku mu war a wax bare boo ko amee waaw nga wax moo si ne koo war a waxal waxal ak moom hmm. maanaam lépp loo dugg yàlla dana la sa defal suutura lu la war a gàllankoor seex bu ñëwee dadul agsi si yow ba di la gàllankoor mais la mañu sénégalais yi tamit dafa kii de dafa am benn waay boo xam ne que xam naa ko waa ji dafa waroon dem France di tàggoo mais tàggoo bi war na ma def trois semaines muy tàggoo di tàggoo benn waay jékki-jékki daal dama diw mii daal nii muy tàggoo dem France bu demee ma ma gëm ne cat amul quoi affaire bi dafa may ree waa demul <laughs> kooku docteur xam na ko Mamas xam na ko mais action boobu foofu tamit boo fi xalaataatee da nga naan. Sénégal Sénégal la mooy li ma la wax gis nga maanaam am na tooke daal. gis nga maanaam tàggoo gam doon def dafa am lu ko jiitu mooy waajal sa bopp. waajal boppam waaw nit ki. waa ngaa jóg. di dox si dara wala ngay wax si dara dangay waajal sa bopp. waajal sa bopp mooy li ma la wax léegi ne la nit. yaramam dafa am yum soxla. surtout boo jógee pour war a tukki wala nga jóg pour war a dem si yoon wala pour war a jëflanteeg nit dara. Mhm. seex da nga war a am yoo jëfandikoo ba pare. waaye moom mu ngay wër di wax waaye est ce que la ko jiitu def na ko mooy waajal boppam si wàllu. waaw non nga nit ordinaire la am yitte kenn ku ne mu jàpp ne jox la la cër tàggu ñëpp. waaw waaye nit ñëpp xam nga mhm. seex mooy li ma la wax léegi. Mhm. ne la nit ñi yow yaa ngi Euh, ubbi sa xol rafetal ko yéene ñëpp jàmm. Mm-hmm. mais est-ce que yow ki ngay tàggu yéene na la sa tukki gi. yéene est-ce que yéene na la nga dem. waaw loolooy problème bi de. waaw loolu nag mooy problème bi moo tax bala ngaa jóg di wax wala ngay dara waajalal sa bopp ci wàllu ñaan ba pare. te puis Sénégal nag Sénégal dëkk bu naqaree dund la. même boo tàggoo ñu bari di leen tàggu. ñu ne waay waay saa yi moom xanaa jëmul Gàmbi gii rek saa yi nangam kii nag moom dossier la man di soof na trop waaye nangam nga bañ a tàggu ñu ne waaye saa yi tamit moom tàggul kenn dëkk bi nekk la saa man li ma gëm mooy boo mënee fexe ba bu lor nit ñi léegi nag boo mën a fexe ba bañ a loru dundal loolu neex rek dund sama fu bul faale ko parce que nit kenn mënul fexe ñëpp bég de faaw nga am ciy jafe-jafe léegi nag dina ñëw ci sëñ Moustapha Lo ci wàllum rab rab jinne ak rawaan xeet googu yëpp daal rab moom moom moom moom sëriñ su bari yab nañ ko may pour dindi ko mu deñ ba nit ki di la wax yeneen soxla yu bokkut ak rab xam naa ne loolu yombul daal waaw xam nga rab maanaam mooy li nga wax ñi koy wax bari na waaye ñi ko maîtriser bariwul wala ñi ko ñeme ñi ko ñeme seex da ngay gis ko su ko ragal ko waaw Euh. seex am na sëriñ soo xam ne euh. mën nañ wax ak yow ba laaj la lu ne waaye euh. sangatu rab duñ la ko mas a jox lii ma wax la ko waaw parce que xam nañ conséquences yi si ne xam nañ ëllëg ñoom seen njaboot liñ si mën a jàkkoonteel mm-hmm. moo tax seex faj rab du lu yomb mm-hmm. képp ku ko yombal jàppal ne yombul ndax rab day fayu te mm-hmm. seex man kilifa yi ma siy toogal di si di siy waxtaan ak ñoom te jox ma secret yu bari nee nañ ma rab bi ngay dind si nit ki Mm-hmm. buñ defee ñaar mënuñu si yow dara ñett mënuñu si yow dara dañuy bàyyi ba mat mbooloo lu mat ay vingt wala ba trente ñu songandoo la ñu ñoo ñoom ñëpp songandoo la pour maanaam doole ji ñuy ñëwee yow nga bañ ko àttan mm-hmm. si am na si koo xam ne si ne mi ngi dëkk suñ côté dëkk yee da ka daan faj bi nga xamee ne maanaam sonal na rab yi dañu bàyyi ba guddi jot am ku am benn rab bu ñëw fëgg ko mm-hmm. fekk da koo fëgg waaw moom bu daan tëdd day léemu ba pare am na yu muy jëfandikoo keroog bi nga xamee ne rab bi fëgg na ko laalul dara te nee na bu ñu ko daan fëgg wala ñu indil ko nit heure yooyu bala daan génn da daan laal loolu mu yàkkamti ubbi bunt bi rab bi sànni ko ngelaw waaw fu ne yóbbu nañ ko fa munta weer deful weer mu gaañ mooy li la wax ne la faj rab yombul mm-hmm. booy faj rab dangaa war a génnee sarax dangaa war a aar sa bopp aar sa njaboot Mm. ndax rab boo dindi si nit seex amatul problème ak nit ka parce que deñ na si moom yow mi ko dindi si moom yéen ñaar a si des mm. combat la pour yéen ñaar eh. maanaam moom nee na faaleetul kële mais comme que yow mm. yaa jox kii ay ñaan ba mu jëfandikoo ko ba mu deñ yow la amal affaire yow la affaire waaw kon client tam ngeen bàyyi xel nit laaj la ci rab nga naan wax lii la ma laaj di xeeb li nga laaj gis nga ñaan ak faj amul prix lii am mooy yërmande moo fa mën a am ak rek ak dimbalante loolu moo mën a ci ñaar ñëpp kenn ku ne xool lu loo mën a jéem a bégale sa morom pour kii xool résultat bi pour loolu am mais amul prix parce que nee naa leen ku yoroon oto 5 millions di ko jaay euh, di ko jaay nga fay ko 4 millions du loo ko jaay te 4 millions baax na moo tax am na ci faj bi lii nii li ci ëpp solo bu dee sëriñ bu baax liñ ci jiital mooy yërmande am ci fayu yàlla ba pare lu mu ci am ci nit ki mu doon xam ne tamit lii tamit liggéeyam la mooy loolu mais sëriñ si ci boppam euh, il fallait que ñuy dugg ci lu man fexe ca am ndam. Mm-hmm. client itam di leen sant lu man te tamit yéene leen comme ni yéene ndam daal parce que nee naa leen sëriñ bi dàqa ña kii naxaate pour man ku ku ñaanal bu sañoon mun nangu daal parce que ñëpp bëgg victoire nag xanaa ku bëgg lu baax kon daal mais rab ñaata fan nga dindi ko. seex rab moom cangat lu mu bari juróom-ñaari fan du ko weer. juróom-ñaari fan. incha allah waaw nga taxali ko moom avis nga taxali ko moom si kàttanu yàlla am baax. macha allah. effet gi ci dëkk bi nag maanaam jigéen ñi bëgg borom kër mu tëleen nga xam dugg nañ fu ne ñaan lu ba jaaxle ci tamit euh, xat dina dal. seex kooku moom. am na mm-hmm. si ñaari secret am na boo xam ne si ne dañ koy takk téere la mais li nga wax am na ñoo xam ne moom. Mm-hmm. takk gi du leen gënal. am na boo xam ne càngat lay doon. Mm-hmm. waaye seex kooku boo ko sangoo ñetti fan. yàlla mën na laa defal sutura weer wa nga ko sangoo. waaw wala wasa topp balaa dee yàlla defal la sutura nga am borom kër. nga borom kër waaye boo ko sangoo si weer wi. dina am ñu la feeñu ñooñu na nga xam ne boo dàqee ñëpp dàq nga ki la war a seex ndax am na càngat yoo xam ne ne boo ko sangoo il faut yow mi koy jëlit nga bàyyi xel ne sangat yi am na lu mu la war a indil am na ñuy ñëw si yow hmm. da ngay bàyyi te nga xool hmm. waaye doo sangu nit ñi ñëw ngay dàq ba pare ne maanaam sëriñ bi li ma defal gisuma si dara hmm. ndax sëriñ bi bu la joxee nga sangu maanaam yàlla def sa sutura am ñuy ñëw am nga ne ñii am na lu tax ñu ñëw si yow kon nag nga bàyyi si xel bu baax waaye yor nañ si ñaar yoo xam ne benn bi téere la balaa tilim la moom la ko mag ñi wax boo ko takkee balaa tilim yàlla mën naa defal sutura nga am borom kër mm-hmm. am na boo xam ne si ne càngat la ñetti fan nga koy sangoo moom tamit bu ñetti fan yi matee weer wi nga ko sangoo mm-hmm. yàlla mën na laa defal sutura balaa dee am borom kër incha allah incha allah dégg ko ñi am problème mu borom kër man nag benn conseil laa leen ci joxaale li mu wax ne boo gisee ku baax rek dugal ci biir mu jeex moo gën ngay nekk di tànn te ngeen bàyyi tamit am koo xam nag dafa doon xale bu jigéen boo xam soit ngeen màggandoo wala ngeen doon ay concurrent ay wujj ngeen xam ma ci lan nga xam moom dèjà seen i statut day di gaar waalante di duggati mu sëyi ñu ne may nañ ko tant de million nga dégg loolu nga xam ne da ngay xaar million yooyu te fekk millions yooyu li ci bëri dafa lu ci laxasu de gis nga dóor kat mën naa dóor tant de million ñëw def mariage ci lu rëy mais feeg trois mois mën na commencé yoolaa newaat dégg ngeen ko ngeen bàyyi xel bu baax di dugg ci tooxi doona yoo xam ne que ki ngay roy Euh, li promoteur ba doon wax rek sëñ du Niang naan bopp bu oyof te te noppalu te oyof mu gën bopp bu diis ba pare di metti mhm. dee leen yàlla lu ngeen man affaire yi ñu bind ci internet bi xaaj bi ay tricas la de film la rek de du dëgg ñoom sac bi soxla ak bës bi ay diw nii la da ngay seen tamit boo xam ne que day bëgg ñu bindal ko diw ak diw lay génnal pour loolu siiw bu ko defee yenn góor dina am yeneen catégorie yu gën a kawe yu mën a am yu mhm. gën a suufe yi ñooñ nag ngay dàqee ba xubbi daas nag commencé ñaan lu pour ba am borom kër loolu daal yaa ko teg sabab ku war a sëy sëyil ku war a jàng jàngil ku war a liggéey liggéey ku war a toog ci kër gi togg mu togg ba lu ko fekk muy noonu euh, sëñ Moussa Wala borom fourna bi wàllum ngóora nag noo ci mel mi teg tegtal ci wàllum sëy waaw wàllum ngóora moom waaw yor nañ si loo xam ne si ne képp kuñ ko jox seex nga jëfandikoo ko juróom-ñaari fan juróom-ñaari fan seex yàlla dana la defal sutura di nga am kartan te maanaam seex dafa am ñoo xam ne si ne dañuy jël garab yi di si rax loo xam ne bokkul tey boo koy jël mhm. benn paa wax na ma ko jamono yee passé ne ma boo koy jël comme gaynde waaye nee na bu doos bi jeexee nga mel ne di woon yow ma ne ko mhm. loolu amul njariñ mhm. li am njariñ mooy nit ki li nga koy jox nanga ko saytu te na leen liggéey bu jaar yoon bu set nga liggéey ko ñun liñ si liggéey lépp si wàllu alquranul karim lay doon bu ñu la ko joxee nga jëfandikoo ko juróom-ñaari fan yàlla defal la sutura ndax seex am na xam nga awra li ko tëye ay sidid la te sidid yi bu bàyyee wala mu dellu mm. li nga xam ne si ne mooy ay ñi dajale si biir alquranul karim ak ni ñu ko mag ñi jàngale ak ñi mm. muy àndal buñ la ko joxee nga jëfandikoo ko yàlla defal la sutura insha allah defal la ci sutura si kàttanam kon wàllum sëy daal moom mën nga ko maîtriser nga ko bu baax nag yëpp insha allah waaw bëri nañu ci jox garab ku nekk mag te doylu bëgg kii waaw ku nekk mag seex buñ la ko joxee nga jëfandikoo ko bu fekkee ne maanaam amul benn feebar boo xam ne si ne rax na si yàlla mën na laa defal sutura incha allah bu dee wàllu new kartan rek ak wàllu tële. Mm. yàlla dana la si defal sutura bu soobee yàlla. Mm. léegi uh, kii nag nu mu tuddati hémorroïde. waaw hémorroïde seex. bëri nañ si waaw ñi toog ci bureau yeeg. bëri nañ si résultat trop car allah wax dëgg yàlla waaw bari nañu ñu siy jëflanteel ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. Mm. waaw ñu ngi wax ne daal am na ñoo xam ne bii génn la ñuy am am na moo xam ne bi ci biir la ñuy am mm. waaye bu mu si mën a doon buñ déggantee nga mm. joxee garab gi incha allah boo jëlee traitement bi rek un mois la yàlla defal la sutura bu soobee yàlla kon tax taximaan bi nga xam day jox sirumaan bi tax bi ndax hémorroïde bi ko sonal bu ñëwee ci yow bu ko deexee bu ko deexee sirumaan bi seeti beneen taxi waaw seex kooku buñ ko joxee garab yi ba mu commencé ko waaw bu ko neexee moom bu commencé jël garab yi yàlla defal ko sutura incha allah mën naa commencé waat dawal mm-hmm. mm. am na waaj jàkkaarloog man fu ne dugg na fu pour hémorroïde day am problème bay bëgg a dee mënu ci dara de benn caméraman la <laughs> caméraman la. Cheikh waaw kooku kay bu fekkee ne maanaam am na. ñun daañ ko jox garab gi incha allah si kàttanu yàlla ak mbaaxam yow nga mën teg sa bët. ma mën a teg sa bët. waaw boobu mooy mooy mooy kii bi daal euh, préliminaire. waaw lu amul seede baaxul. waaw ma saxit naa illaa bi ma waaw jeex na incha allah kon baax na kon euh, waa ji ngi dégg. Euh, caméraman la bu sérieux ah waaw ak bu sérieux du benn sax waaw ak <laughs> euh, sëñ Moussa Wallo léegi doomu ndeyam nag siti siti moom dafa dem ba léegi euh, ñu bëri dañ koy jàpp ne taayiran ko faj dafa mel lu moom it lu war a jël temps daal. Mhm. waaw siti seex bay xati waaw. maanaam bu fekkee ne am nga garab gi nga xam ne si ne mooy bi wér. waaw nit ki bu koy jël dafa war di tuur ndox. war di tuur ndox. ndax siti bi si boppam lay génne. Mm. seex ñun garab gi si yor boo koy jël da ngay gis da naan li may tuur ndox sax dafa bari. Mm. fekk maanaam garab gi mooy wiide siti bi. Mm-hmm. ndax siti day dem ba mook émorite yam day dem ba sa kàttan na war a amee kàttan si wàllum sëy doo mm-hmm. moo tax boo ko amee rek defal traitement bi yàlla defal la sutura ndax mm. ñëpp yemuñu. ñëpp yemuñu te ñëpp it bokkuñu ñu gëstoo. ñëpp bokkuñu garab yi ñu yor Mm-hmm. li nga wax léegi boo demee si kenn gisoo rek nga ne dootuma dem fenn mm-hmm. te yàlla bindewul noonu àdduna ndax maanaam liggéey sax da nga koy wut dem fii du sotti nga dem feneen du sotti nga dem feneen mu sotti mm-hmm. noonu la yàlla bindee àdduna bul dem si benn sëriñ rek mu nax la wala mu lekk sa xaalis wala lam la defal gisoo ko nga ne sëriñ sépp ñoo yem ya ñëpp yemuñu ndax bu li olof njaay di wax ne bu ñëpp yemoon cër am ñu gedd seen cër loolu moo si nekk seex am na ñoo xam fa ñaan daan nekk ba tey fa lañ ko teg résultat ya ñaan daan am ba tey mi ngi am hmm. ñi ko teg si yoon seex ba tey ñi ngi ko teg si yoon waaye ñi nga xam ne si ne moom liñ si dugal mooy xaalis ak maanaam xool ñu naxee nit ñi maanaam nag loolu moom li ngay mujj mooy sànkute ak mujj goo xam ne du rafet ak li lay xaar ëllëg incha allah ñu bàyyi si xel léegi examen ak concours bac BFM ak concours xeetu concours la waaw seex kooku moom avant may ñëw rek am na ñu bari ñoo xam ne jox naa leen seen i garab si wàllu BFM bi Mm-hmm. waaw incha allah kooku moom am nañ ci loo xam ne si ne lu wér la càngat goo xam ne si ne waaw suur yi nga koy def suur yi ngay def bu dee befem bi nii am na ñoo xam nee nañ benn fan la benn fan bi nga koy jëfandikoo mm-hmm. am na ñoo am na boo xam ne si ne ñetti fan nga koy jëfandikoo mm-hmm. waaye bu la yàlla defalee sutura incha allah am na boo xam ne big bi nga ñuy jox ñu am luñ la si defal am luñ la jox nga sangoo ko boo demee yàlla defal la sutura yàlla defal la ci sutura waaw incha allah ah, kon dégg ko bu baax a baax wàllum concours euh, sëñ Moustapha Lo borom bi nee na ku ci ñëw di nga ci am euh, lu kawe njort bu baax a baax léegi tamit sëy ñii sëy teew am doom nag. waaw seex ñii sëy teew am doom. am na ñoo xam ne xam nga rab. rab seex dina jàpp nit ba euh, maanaam li nga xam ne si ne fa la doom bi war a jaare man yu bi. Mm-hmm. da koy ray mm-hmm. maanaam tey boo sëyeeg sa boroom kër ndox bi war a génn rab bi da si sànni sawara. ndax xam nga rab yàlla da leen a bind si sawara. Mm-hmm. sawara boobu mu si sànni nag mooy ray mooy ray maanaam man yu bi. maanaam ba nga xam ne si ne bu naroon a formé wu nekk doom du ko nekk hmm. seex moo tax wàllu rab dana si dox am na ñoo xam ne si ne seex na si hmm. sëriñ si di bàqel ndax yàlla moo ne am na ñoo xam ne si ne duñ am doom maa leen bindee noonu waaw mais bu fekkee ne ñun dañuy jëflante ak yow si côté boobu seex dañuy jël sa tur ak sa tur yaay seet ko hmm. bu ñu xamee ne yow gàllankoor moo la te am njaboot bu ko defee ñu wax la li la gàllankoor ñu defal la si ñaan yàlla yàlla defal la ci sutur waaw incha allah macha allah léegi gis nga ne lu doxal sa liggéey la te laaluñu ko. waaw Cheikh loolu moom xanaa wax dëgg yàlla ragal naa ne lu bari ñëw nañ si. Mm. waaye li may wax mooy. Mm. na nit ñi daal nañ ñaankat yi gën a teg liggéey bi si yoon. gën a sérieux te gën a sérieux gën a sellal. gën a te xane fii dërëm boo fi lekkal nit. Mm. ëllëg yowmal xiyaam bala ngaa jéggi siraat da nga ko rek di ko waaw. moo tax maanaam li am solo mooy teg ko si yoon te sellal te jëflante bi di rafet. te lépp loo jëflante ak nit seex. lépp loo wax ak nit. Hmm. ku ne xam na ne yàlla mooy nangu ñaan waaye la nga wax ak moom na ko def. na ko def waaye nit ki wax la ngeen jëf la ngeen jiboo mu hmm. yónnee la xaalisam nga tëdd nelaw. Hmm. maanaam foo mën a jaar ëllëg da ko layoo. waaye bu fekkee ne la sa war lépp def nga ko te sellal ko yàlla mën na la saa defal sutura nga am sa ndam. moo tax ñaanu këyit mu jafe. ñaanu këyit jafe parce que nelaw guddi laaju ko. laaju ko seex képp ku may liggéeyal wàllum këyit ñetti fan danaa ko am du ma nelaw guddi. moo tax boo ko waxee nit nga ne ko tey bu ma la waxoon ñetti fan yi nga xam ne si ne moom laay toog du ma nelaw ak booy werd li ngay jàkkoonteel seex ndax lu ne lay traverse hmm. maanaam tey bu fekkee ne yow waajaloo sa bopp lu ne mën na la see fekk hmm. bu fekkee amoo garantie lu ne mën na la moo tax da ngay gis ñi nga xam ne si ne dañuy dugg xalwa ñu lay laaj bu bari ndax risque yi si ne dafa bari waaw risque yi si ne dafa bari hmm. ndax seex xalwa boo koy dugg lu ne mën na la saa feeñu lu ne mën na la lu ne conséquence bu ne mi ngi si biir Hmm. moo tax da ngay waajal sa bopp si wàllu mm, waaw si wàllu si côté yëpp ñi la war jot yëpp duñ la jot waaw duñ la jot ba pare sa liggéey day taxaw looloo tax ñaanu course boo koy defal nit it foofu mu bàyyi xel si côté boobu mu bàyyi xel waaw si côté boobu incha allah euh, léegi mën naa wax félicitation tamit ah <laughs> daf mel ni ëpp fit sëñ Abdou Lo de <laughs> <laughs> waaw waxoon naa naa la romb incha allah waaw yow ah. waaw <laughs> sëñ Moussa Lo kër Rasulaay te xam naa nga njëkkaat ko bu xaaree tamit nga dem kaat ma dem kaat waaw macha <laughs> allah léegi koy sa dëkk gërëm looy tàgg xaaral ma joxe numéro bi ba pare eh, yor ci biir émission bi balaa may eh, numéro bi maa ngi gërëm Ousseynou Ly Allemagne Ousseynou Ly Allemagne Mami d'enfant France eh, Sayer Fall Espagne ba Diabaté Allemagne ma xool yéen ñëpp maa ñëw de maa ngi ñëw de maa ñëw Allemagne léegi def si émission foofu lu mel noonu ak euh, France ak tamit euh, Fat Diop Amérique euh, ak kan Modou Samb États-Unis ak tamit Malick Jité Grèce gërëm na ñëpp ah ñi nga xam ne ko daal ñu ngi seetaan Tektal TV bëggee ñu bu baax Amadou Diawara Air France gërëm na ñëpp ah bu bu nu limee rek dañuy jum parce que ñun moom diaspora bi am na nag sama nitu bopp yoo xam dama leen di fàtte Ibou Dieye Eh, Espagne eh, maa la jiite Grèce man a damaa yor melokaan boo xam ñi may tudd rek laay tudd dama këru même numéro téléphone bu njëkk yooyu laa continué këru ngeen comprendre bu baax am na ñu may defal àdduna ci biir te ngi nii di ëblee Cheikh Naar Fall Cheikh Naar kontaan nañ gis nañ tamit eh, xewal yi moom it day def lu baax pour ñun mami d'enfant noonu Ousseynou li al noonu Sayer Fall ñi ngi yónnee daal yéen teguma leen coono yooyu billaay yéen di def dafa doy sëkk gërëm nañ leen yoon bu mujj ci biir émission bi numéro sëñ Moustapha Lo borom fourne bi defal 77 141 37 55 77 141 37 55 beneen bi 76 662 75 75 76 662 75 75 sëñ Moustapha Lo borom fourne bi nekk ci Géejawaay ak Louga sans nga déplacé wu même bu ngeen jëflantee bagage yi mën laa fekk ba fa nga nekk ak pexe gërëm nañ équipe technique bi ñu àndal moom mi docteur Wade bu Casamance nekk ci euh, borom këru Gànga Wade Euh, moom it xam naa mën naa xel mi ñaareel nekk ci même fit bi day mas mais sëñ Moussa moom dem na 3 sëñ Abdoulaye nekk 2 gërëm nañ tamit Baye Massamba Diop moom ak wëndëng la tekkiwul dara amul dara moom moom Samba Samba sax légal na tuuti Samba Amar gërëm nañ tamit Petit Sow Gaw Sow moom it ak wëndëng la tekkiwul dara moom ba léegi mooy loolu quoi mooy loolu ay ga xëy na mën naa fi duwaa ngi mas euh, gërëm nañ ñëpp ah soxna May Diop ci réalisation bi sëñ Fallou Mbacke Diop gërëm nañ ko moom mooy yoroon beneen caméra bi Euh, ak xaritam El Hadj Soloxu Ndiaye ak Ousmane Lota ak Cheikh Tidiane gërëm nañ xaritam tamit euh, Vinicius ak Modric ak euh, Alaba David Alaba ñoo ñëpp xarit sëñ Fall lan ak Abdou Diallo ak Elimane Ndiaye Elimane Ndiaye gërëm leen ak Sadio Mané xarit sëñ Fall yi fàttali naa dugg ci football de sport tamit yaa ngi ci kii joueur bëgg a dem mondial. Cheikh waaw bu ñëwee bu ñëwee càngat gi ñu koy jox fu kawe ngay taxaw sangoo ko Cheikh. waaw yàlla defal la sutura fa nga bëgg a àgg yàlla àggale la. comme daal heure bii cour jour bu amul bàjjan ak nijaay rek nga teel jóg. na teel a jóg bu la ko indilee Sanro Abdou Diallo Dieng seen i njee njee Elimane Ndiaye ak xeet googu daal. Cheikh waaw. boo nekkee footballeur dafa am ñaan yoo war a. ngànnaa hmm. waaw ndax seex am na loo xam ne dañ la koy def. waaw te ñu koy def si mboot. waaw buñ ko defee. waaw kuy football def ci sa tur. waaw foo jaar am problème mu tànk. foo jaar am problème mu tànk foo jaar am problème mu tànk. nga dégg moo tax nañuy bàyyi seen nañu bàyyi seen xel si wàllu ñaan. Ah. te nañuy aar seen bopp te nañuy taxaw si wàllu ñaan bu baax a baax. bañ leen bàyyi xel rek am na joueur Sénégal boo xam ne que moom muy taw muy naaj muy nawet muy sedd muy ngelaw day bokk ci bi te day fubal. Mhm. kooku moom ku ko naree tere bëree fubal moom dëgg bokk sax. ma wax leen lu leer rek toog leen foofu di seetaan rek am na joueur ko mën jàngat nga jàngat boobu moom ah entraîneur bi sax gënu ko wóor la place bi moom ci avion bi bu 23 yi moom day bokk. Mhm. te ñaan nag ak jéngu la boole rek. Mhm. ngeen boole ko bu baax a baax. kon gërëmal soxna yeeg yooyu. waaw Cheikh. waaw ñu ngi santaat ñëpp di gërëm ñëpp. première dame di gërëm waaw. soxna Mbène. waaw soxna Mbène Faye. soxna Mbène waaw soxna hmm. Ousseynou. waaw ak di gërëm soxna Safi. waaw di hmm. leen sant bu baax di leen gërëm. Hmm. waaw numéro 4 moom doo ko gërëmagul ko rek rek. <laughs> Cheikh. <laughs> ñu ngi sant bu baax a baax Elimane Ba. ak Omar Ba. Omar Ba waaw ak sëñ Abdou. ak sëñ Abdou bu baax ja waaw. sëñ Abdou nga xam ne si ne wax dëgg yàlla waaw. Mm. Euh, mi ngi ñuy taxaw bu baax a baax si biir ak si biir. di gërëm tamit euh, Diagne. Diagne waaw di gërëm Cissé. Mm-hmm. ak ñi nga xam ne si ne ñoo ñuy jàppale si liggéey bi yëpp Cheikh. Mm-hmm. ñu ngi sant doa tegtal di leen gërëm. Cheikh li ma la wax léegi rek moo si ne am na mm-hmm. yoon wax xam ne si ne boo si nekkee. maanaam tey ñaanal nga sa bopp ba pare. li si des day ñëw dolli la rek waaye yal na la yàlla aar comme ni mu aaree asamaan aar waa tegtal yépp ak lépp lu xeetoog tegtal rek yal na ko yàlla aaral boppam sàmmal ko ko ba lépp loo xam ne si ne lu yàq la wala lu loo xam ne si ne xel mi yàq da seene rek yàlla aar leen sa te sàmm leen sa amiin te mën na ko yàlla na ko def si barkaal ñaanam dafa am fu mu bëgg dem def émission sax nii ci benn réew rek réew bu la rek waaw seex yal na la yàlla defal yoonu jàmm yàlla defal leen ngeen dem si jàmm ñëw si jàmm yàlla defal leen sutura bu yaatu foofu bu ngeen demee mm. la ngeen fa doon séentu yàlla defal leen fa lu kawe seen jort si barke alxuraan réew yu bari la ñoom Gambie yëpp bokk nañ ci ak Beneek yëpp waaw réew yu bari lañ jëm nag tegtal di tourné ji foofu xam naa ku nuy kar nga kar ñu ah. ñoom Beneek Angola Afrique du Sud côté yi ci des sax yi des baa ñu côté ko bàyyi noonu parce que fon jëm mooy loolu quoi gërëm nañ bu baax a baax kon ñëpp euh, sëñ euh, Moustapha Lo yàlla na yàlla barkeel xam-xam bu baax yokk ñaan xewal dikk loraa ngi dakk ngeen abonné Tektal TV kum neex nga abonné kum neex bul abonné njëriñ lan yor xewal dikk loraa nga dakk jaajëf